yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli sëlmal ci ab yonentam borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ci alquraanul karim yaa ayuha alladina aamanu kutiba kama kutiba ala min qablikum laallakum tattaquun wa yaqulu alayhi salaatu wassalaam man sooma ramadaana imaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqaddama min danbi mbokki jullit yi borom bi subhaanahu wa taala xaata bante na ñi nga xam ne gëm nañ ko mu woo leen ngir jottali leen benn xibaar bu am solo benn décision bu am solo te mooy ne yéen ñi ma gëm gëm sama yonent gëm samay téere yéen ñooñu xam leen ne farataal naa ci yéen comme ni ma farataale woon ci ay xeet yu leen jiitu lan laa farataal ci yéen mooy koor ma faratal ko ci yéen nag ngir benn jubluwaay kepp mooy koor gi man leen a faggul ak ragal yàlla gi nga xam ne bis bu nekk moom lañuy tàmbalee di ko dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadiisam ne képp koo xam ne nii woor nga weeru koor ca woor ga koor ga woor ga nga ko woor jubluwoo ca lu dul gëm ne yàlla moo ko dig digle moo ko santaane ak di sàkku yool ba mu ca dige nee na képp koo xam ne nii woor nga weer ngir ñaari mbir yooyu lépp loo amoon ci bàkkaar boo xane ne nii defoon nga ko laata weer wi ñëw loola jéggal nañ la ko kon mu mel ne ci fan yi ñu toll dañuy séentu ak gan gan gu am solo nag gan gu amub dayo gan goo xam ne nii nun joxuñu ko soloom joxuñu ko ab dayoom waaye ki ko yónni moo ko ko jox borom bi subhaanahu wa taala nag comme li waxe ci alquran wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar mooy bind lu ko neex bu ca bindee ba noppeetam mu tànn ca lu ko neex jamono sunu borom moo ko bind jamono jépp tey wuutewul ak démb jant bu fenk la rekk ba so ñu toogaat ba suba mu fenkaat loolu mooy jamono kon jamono yi benn wuutewu ci ak moroomam yàlla moo leen bind ñoom ñépp waaye bi mu leen bindee ak li ñuy nuroo nuroo moo ca tànn nag ay jamono yoo xam ne nii ñoo ko gënal ndax ba mu defee at mi muy fukki weer ak ñaar da caa tànn ci fukki weer ak ñaar yooyu weer woo xam ne nii moo ko ca gënal muy weeru ramadaan weeru ramadaan woowu mu tànn ci fukki fan yoo xam ne nii moo ko ci gënal ci weer wi muy fan weeri fan muy fukki yu mujj ya fukki yu mujj yooyee mu tànn ca benn guddi goo xam mooy laylatul qadar mu mu def ko ca fukki yu gudd mujj yooyu tànn ko moom itam mu gënal ko ci weeru koor wi kon loolu def defa sunu borom la ak ci yeneen yu baree bari yu muy tànn yoo xam ne nii moom kenn du ko wax waaw ah, kenn du ko laaj lu muy def nun kay lañuy laaj li ngeen di def fu ngeen ko teg waaye yàlla moom kenn du ko laaj foo ko teg kon gan googu ñuy ta teeru muy weeru koor yal nañu ko fekke yal nañ ko fekke ca talko ca man ko ba màng ko ba mu jeex yal nañ ko yàlla defal defal ko bépp jullit gan googu ngir ñu xam dayoom dañuy xool yan mooy ay ngëneelam bu ñu xamee ay ngëneelam daal xam gan gi ban dayo la am buñ ko xamee nag doo ko xam gan bernde lañ ko war a mën a defal ñu xam itam gan gi bu dikkee yan njariñ lañuy ñuy andil kon ngëneeli weeru koor ak njariñi weeru koor mooy li ñu fas yéene waxtaane ci sunu xutba bi weeru koor nag ay ngëneelam mënuñu koo jeexal waaye dañuy wax rekk yi ci yoo xam ne yi ci gën a am solo la weeru koor bokk na ci ngëneelam li gën a am solo mooy ne mooy weer wi nga xane ci la alquranul karim wàcc alquran mi nga xam ne nun mooy sunu constitution loi yépp loi alquranul alquranul karim moo nekk ci seen kaw loi yépp dañoo war a tëbb ci alquranul karim mooy seenu ruux constitution boobu dama ni ci weeru koor la wàcc waaye buñ ne ci weeru koor la wàcc ca nga déggoon ñu ne alquranul karim mu ngi wàcc ci ñaar fukki at ak ñett dana laaj foofu tuuti ñu leeral fi tuuti nan lay mën a wàcce ci biirum ñaar fukki at ak ñett ba noppi ñu ne ci weeru koor la wàcc loolu lu yomba lijjanti la alquranul karim ci boppam lijjanti na ko alquranul euh, karim wàccam dafa am ñaari wàccin dañuy dafa am lu ñuy wax an nuzul al jumali mooy alquranul karim xam ngeen ni téere yi ko jiitu yéen yépp dañu ko xëy jël ko benn bis rekk wàcceendoo ko lépp loolu téere yi ko jiitu woon tawreet ak linjiil ñoonu lañ leen wàcce wàcce leen fii ci àdduna xëy andi ko rek muy sëfub giléem ñu teg di seet lu ñuy jukki alxuraan moom kenn wàccewu ko noonu waaye tam wàcce nañ ko noonu nag ngir mu am wàcce gu mel noonu moo tax borom bi da koo wàccee jële ko ci allawxul mahfuuz ñu andi ko ci baytul izza baytul izza nag ci asamaan si ñu gën a jege la nekk mooy kaaba malaaka yi jàkkaarloog sunu kaaba gii kon ñu jël ko benn yoon mu jóge foofee ca lawxul mahfuz daat koy indi fii ci baytul izza wàccee googa lépp lañ wàccee ndoo wàccee ñaareel gi nag muy jóge ci baytul izza di wàcc fii ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci àdduna loolu moo diire vingt-trois ans kon bu ñu nee alquranul karim dafa wàcc ci weeru koor borom bi subhaanahu wa wax na ko nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran nee na weeru koor la wàccee alquran waaye waxaat ne tam inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka alquran dama ko wàccee ci guddi gu barkeel genn guddi loolu ci genn guddi la am waaye genn guddi googee ci weeru koor la nekk guddi googee moom la ñuy wax laylatul qadar inna anzalnaahu fii laylatil qadr inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka kon guddi googu ci weeru koor la nekk ci la alquran jóge ca lawhul mahfuz ci baytul izza lépp wàccandoo loolu kon mu bokk kook téere yu jëkk ya waaye am loo xam ne nii téere yu jëkk ya amuñu ko mooy di jóge baytul izza nag selon aaja yi ak selon laaj yi ak selon xew-xew yi ñu di ko wàccee ci diirub ñaar fukki at ak ñett kon loolu day wone màggaayuk weeru koor bokk na ci liy wone màggaayuk weeru koor ba tey abu hurayra dafa nettali jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida daxala ramado ramadaanu futtixat abwaabul janna wa xulliqat abwaabu jahannam wa sulsilati shayatin abu hurayra nee na yonent bi nee na weeru koor bu tàbbee dees di ubbi bunti àjjana yépp ñu ne ŋàll loolu moo indi tashdid gi mënoon na ne futixat waaye waxul futixat dafa ne futtixat futtixat nag tadif googu shadda googu léeg-léeg mën naa indi ak baril ca la nga xam mooy maf'ul ba mooy la ubbi moo bari léeg-léeg itam mën naa am ci li ubbiku moo bari nga xam ne faa'il ja at taksiiru day léeg-léeg day nekk taksiir fil faa'il léeg-léeg mu nekk at taksiir fil maf'ul xam nga imraatu yuus yuusu euh, euh, euh, imraatu mana zalixa imraatul aziz ba muy sa pexe fexeel yuusuf wa xallaqati labwaab dafa wode ne bunt yu baree bari la tëj bu duggee ak moom rek tëj duggaat ma ci beneen tëj duggaat ci beneen tëj bunt yaa bari fii moom itam bunti àjjana bari na ndax mat na juróom-ñaar waaye ubbiin waatam da caa am solo maanaa ubbi ko nii rekk tuuti waaye dañ ko ubbi ba mu ne ŋàll moo tax mu ne futtihat abwaabu aljanna wa xulliqat moom itam noonu la gis nga waxul euh, lay wa xulliqat la wax abwaabu jahannam wa sulsilati shayatin bu ko defee euh, seytaane ya itam ñu jéng leen gannaaw ba ñu ubbee bunti àjjana ñu ne ŋàll ñu tëj ubbi ñu tëj bunti sawara ñu fermé wu hermétiquement jéng seytaane yi moo tax nag weer wi nekk weer woo xam ne nii weeru yu rekk la mën a nekk euh, ci beneen riwaaya loolu buxaari yi moo ko nekk li mu ne ida kaana awalu laylatin min ramadana suffidati shayatin foofu tam gis ngeen ne dañ koo tashdid seytaane yi dañ leen di yeew bañ ne ngott wa maradatul jinn ak saay-saay su mag yi ci jinne yi way féttéerlu yi ci jinne yi xam nga jinne jinne bu gëmee yàlla du seytaane bu ko gëmul seytaane la waaye doomu aadamaatam tam nag noonu la moo tax shayatina lin si wal jinne doomu aadamaatam bu gëmee yàlla ah, nekk nit ku baax bu gëmul yàlla seytaane la nee bu boobaa dañ leen di jéng tënk leen yeew leen bañ na ngodd ñu ubbi ah bunti ajana ca duñ ca tëj benn duñ fa bàyyi benn boo xam ne nii dañ koy dañ koy tëj bunti sawaraatam ñu tëj leen duñ ca bàyyi benn bu ubbi ko loolu day wane màggaayu weeru koor bokk na ci liy wane màggaayu weeru koor ba tey ne weer la woo xam ne nii weeru njéggale la danañ ci jéggale jéggal ñaar ñaar ñooñu kenn ku nekk nanga fexe ba bokk ba di ci kenn wala nga nekk ñaar ñépp sax maanaa ki ka woor ca woor ko ngir yàlla ak sàkkub yool ak ki taxaw ca taxaw ko ngir yàlla ak sàkku ab yool ki ka taxaw nag mooy ki nga xam ne gannaaw julli farata yi dafay naafi la di naafile naafilay guddi abu hurayra nee na yonent bi nee na ku woor weeru koor ngir gëm yàlla rekk tax nga def ko ak sàkkub yoon danañ ko jéggal bépp bàkkaar boo xam ne defoon na ko loolu mooy ku ko woor dellu waxaat ne man saama man qaama ramadaan ku taxaw weeru koor ngir yàlla ak ngir sàkku ab yool danañ ko jéggal bàkkaar bu mu masoon a def dellu waxaat ne man qaama laylatal qadri ku taxaw guddik laylatul qadr goo gi nga xam ne dañ koo réeral ci weeru kor wi waaye li gën a lëng ne mi ngi ci fukki fan yu mujj yi ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa bu fukki fan yi mas mujj yi masaa ñëw moom day dugg jàkka dootu génn ah, digal ay njabootam ay soxnaam ñoom ñépp ne leen takku leen ca fas yéene dàq guddi gi nga xam ne mooy guddi laylatul qadr noonu la daa def kon guddi googoo tam ku ko taxaw dañ la danañ la jéggal lépp loo masoon a def ci bàkkaar yaakaar naa nag fexe ba ràtte ñett yooyu ñàkk koo woor ñàkk koo taxaw weer wi yépp ñàkk a taxaw laylatul qadar loolu ak càggante moom mënu ko weesu ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne ramadaanu ila ramadaana dafa ne assalawaatul xams wal jumatu ila al jumaa wa ramadaanu ila ramadaana mukaffiratun lima baynahunna ida jitunibatil kabair nee na julli juróom julli diggante julli ak moroom ja ak ajjuma ak moroom ja ak weeru koor ak moroom ja nee na ñett yooyu ñett yooyu dañuy far bàkkaar dañuy far bàkkaar yu ndaw yépp dañ koy far bu fekkente ne wattandiku nañ bàkkaar yu mag yi waaye koo xam ne dangaa julli tisbaar laata tàkkusaan di jot nga def bàkkaar bu mag mooy ne sa jullit tisbaar baaxul bu ndaw nag mën nga ko fee def boo ko fi defee nag bu tàkkusaan dikkee far ko diggante tàkkusaan ak timis ku fi def bàkkaar bu mag mooy ne jullit tàkkusaanam moo baaxul waaye bu fi defee bàkkaar yu ndaw nag bu timis dikkee far ko noonu ngay def ba julli yépp jeex niki noonu ajjuma ak ajjuma ajjuma ku ci diggante ajjuma ak moroom ja ku fi def bàkkaar bu mag mooy ne ajjuma jee daa nanguwul bu nangu woon doo ko fi def waaye nag bàkkaar yu ndaw yi ngay def ci diggante bi bu ajjuma ji ci tegu dikkee nag moo koy far lépp niki noonu weeru koor ak moroomi itam ku fi def bàkkaar bu mag mooy ne weeru koor wi nga weesu dafa nanguwul bu nangu woon ah, bu weeru koor wi dikkee lu mu fi fekk ci ay bàkkaar yu ndaw daf koy far loolu day wane ne mm, euh, weeru koor weer wu màgg la weeru koor lii wane ne ba tey weer wu màgg la mooy ne yàlla da ci goreel lu bare bari bare bari ci ay jaam ay jaam yoo xam ne bu ñu nee goreel nag mooy koo xam ne nii ak sawara la waroon a dem ñu ne ko ca kaccet yóbbu ko àjjana ñu ne ko ca kaccet yóbbu ko àjjana kooku mooy goreel yàlla nañu ko yàlla defal ndax koo gis nag doomu aadama yépp ku nekk am nga am nga place ca àjjana am nga place ca sawara ca benn mën na cay wéy bu ko defee nag weeru koor am na ñoo xam ne ñi ci seen place ba ca sawara moom ca lañ la naan ca kaccet ne leen dootu leen fa dem àjjana ngeen jëm loolu abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne walillahi utaqaau min annaar yàlla am na ñu muy kaccatu ci sawara ñu ne ko kañ mu ne wa zalika kulla laylatin bépp guddi ci guddi ci guddi weeru koor yi guddi yépp dana ci am ñoo xam ne nii dana leen goreel ci sawara boo boole leen ci listu àjjana mënatuñoo dem sawara loolu ñooñee yàlla nañ ci yàlla boole ba tey bokk na ci liy wone màggaayu weeru koor ne mooy weeru tuub la waaye weeru soppiku la ak soppi nit ki lu mënoon a nekk ci càggante li mu mënoon a nekk ci ay jikko yu bon wax dëgg yàlla bu weeru koor dikkee war naa mën a fexe ba ma réparer yooyu yépp lu mënoon a def ci bàkkaar itam war naa fexe ba weeru koor bu dikkee mu tuub ko yooyu yépp ndax kat weeru koor moom ndegam ubbi nañ bunti àjjana tëj bunti sawara jéngi seytaane yi ah loola kon ku jéem dara dara jéem a not sa bakkan sa bakkan rek moo fi des boo ko notee rek insha allahu da bokk ca ña nga xam ne dana da nga mën danañ mën a soppi seeni jikko danañu mën a tuub moo tax abu hurayra radiyallahu anhu dafa jële ci yonent bi sallallahu alayhi ne ida kaana awalu laylatin min shahri ramadan am yu bari yum ca ba laata mu jeexal mu ne wa yunaadi munaadin yaa baaxiyal xayri aqbil wa yaa baaxiya charri aqsir nee na bu weeru koor teroo dafay am aji woote ji woote ne waay tereet tereetu yu taxaw na ku bëgg aw yu ñëwal ñëwal ñëwal waaye tereetu ay traitub lu bon marché boobu tëj na kon nag ku loolu yëkkati woon nanga fexe ba xam ne weer wii du weeru loolu loolu day wane màggaayu weeru koor waaye bokk na ci liy wane màggaayu weeru koor ba tey ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñaar ñaar danañu ràmm ñaar alquran ak koor dañuy ràmmu danañu ràmmu ab jaam alquran ak koor danañu ràmmu ab jaam alquranu asiyaamu walquranu yashfaani lil abdi yowmal qiyaama bu yowmal qiyaama ñooñu ñoom danañu jóg di ràmmu alquran ak koor ñu jóg di ràmmu nee na koor day wax yaqulu siyaam koor day wax ne kii day sama jaam la kii sab jaam la kii sab jaam la yow yàlla maa ko tere woon bànneexu bëccëg yàlla dama bëgg nga tin ma ci moom ni nga xam ne terewu woon na ci bànneexu bëccëg yépp damaa bëgg nga tin ma ci moom yàlla tin ko ci ci moom alquran ne kii de man maa ko tere woon nelaw guddi maa ko tere woon nelaw guddi daanaka du nelaw guddi ngir rekk di ma sonne di ma taxawee di ma jàng yàlla dama bëgg nga tin ma ci moom yàlla tin ko ca kon xam leen ne yéen yu nga xam ne da ngeen a nekk boroomi alquran boroomu alquran moom moomul di nelaw ba bët set waaw dangaa war a taxawe alquran moo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam witr witr dañuy wax ne ahlul quran witr dafa war ci ñoom waaw julli googu nga xam ne dañ ci julli di ci taxaw di ci jàng alquran ju bari dafa war ci ñoom ñoom gannaaw sant yàlla julli sëlmal ci yonentam ñu ñëw ci juróom-ñaareel tomb bi wane ba tey màggug weeru koor ajjana buntam yooye da caa am bunt boo xam ne dañ koy tuddee ar arrayaan nag mooy luy mandale luy mandale nga xane euh, euh, ku ca jaar mar moom dootoo ko def waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan ajjana am na bunt boo xam ne ni moom ña ngi koy tudde rayyaan yadxulu minhu saaimun ña doon mar ca adduna rek ñoo cay jaar mooy ñaw doon woor ca adduna ñooy jaare ca bunt boobee ca bunt boobee buntu teraanga la joo xam ne teraanga ya fa am amul fenn ca àjjana foofu rek la am mu ne ña doon woor rek ñoo fay duggee yadxulu minhu saaimuuna yowma alqiyaama laa yadxulu minhu ahadun xayruhu ku dul ñoom doo fa jaar ca fa ida daxalu ña doon woor ñu bu ñu duggee ba jeex uxliq bunt ba dañ ko naan kàpp upp falam yadxul minhu ahad kenn dootu fa jaar bunt boobee kon ñi doon woor rek la fa nekk cay xéewal lépp ca xéewal ya fa nekk amul feneen fu am ci àjjana foofa dong la am ñii doon woor rek ñoo fay jaar bokk na ci liy wone ba tey réyuk weeru koor ngëneelu weeru koor dayob weeru koor ak dayob koor ci boppam bokk na li koy wone ne mooy borom bi subhaanahu wa taala ki nga xam ne dafa woor nee na man maa koy fayal sama bopp soo jullee man na maa yebal malaaka ne ko boo demee jox ko lii ne ko ak fayam a ngi nii ah soo soo joxe génnee asaka noonu ma yebal kenn ne ko boo demee ne ko ak fayam a ngi nii waaw ak topp yàlla yépp boo ci def yàlla yable dox la sag fay waaye koor moom nee na duma ma yebal kenn man ak yow ma fay la lu tax ndax koor ba nga koy woor itam man ak yow la woon kenn dugg ca yow sax amoo ca amoo ca yow sax amoo ca ab cër koor ki kay woor moom ci boppam amu ci ab cër moo tax dañu wax ne mooy jaamu yàlla gi nga xam ne bokkaale mënu cee am bokkaale mënu cee am njistal mënu cee am nit ki day mën a woor walla wóoru rek ndax bu fekkonte ni dafa bëgg njistal mën naa dugg ci am néegam naan ba màndi lekk ba suur génn ne damaa woor kon koor ga nekku fa njistal amu fa ah kon woor rek wala ñàkk woor ku woor ku nekk sa digganteek sa borom moo yàlla rek moo la contrôlé keneen contrôlé wu la moo tax ndegam sa digganteeg sa boroom la mu ne la ndegam bi nga koy def sa sama digganteeg yow rek la bu ma lay fay itam man ak yow rek du ma yebal kenn loolu la wax ne kullu amali ibni adama la jëf ju doomu aadama yi def rek moo ko moom jëfi boppam la njariñal boppam moo ca nekk ba mu des koor nag illa siyaam illa sow moom sa moomoo ci dara yow kay dangay wàññi sa sa say bànneex wàññi sa yaram wàññi sa derit wàññi di mar di xiif sa jëmm wàññi ko moom ngay azakal sa jëmm loolu lépp ngir yàlla dangay ngay wàññi ko waaye yokkuwoo yeneen jaamu yàlla yi nag man daf lay yokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaamu yàlla yépp jaam bee ko moom ba mu des koor man maa ko moom man lañ koy defal wa ana ajisi bi maa koy fay koor daf maa neex yàlla nee na koor daf maa neex ba wala xaluufu fami saim soppiku ga nga xam ne gimi aji woor ji daf koy soppiku xam nga boo wooree ba ngoon sa gémmiñ gi kenn du ko mën a jublu ngir xet gu naqari nee na xet gu naqari googu xet gu naqari googu fonk gu ma fonk koor bëgg gu ma bëgg koor nee na moo ma dàqal xetuk gëtt ga gën a foor ci gëtt yi lat ko lañ ba gën foor ci lat ko lañ ji nee na xet googu man moo ma ko gënal kon weeru koor nga ma ay ngënee la ma ngi noonu mënee su koo lim yépp yàlla na nu yàlla defal ak déggu ak akub topp اللهم بلغنا رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا باليمن والإيمان والإسلام والسلامة اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا باليمن والأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيامه allahumma arzuqna siyaama ramadana wa qiyaama allahumma arzuqna siyaama ramadana wa qiyaama allahumma arzuqna qiyaama laylati alqadr allahumma sallimna li ramadan wa sallim lana ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala alhamdulillah allahumma allahuma ainna ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik allahuma ainna ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik allahuma ainna ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik qumu ila salatikum yarhamukumullah yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran